alors s'il vous plaît ma xool. war a bàyyi ba ma rek. waaw affaire bi tourné wul. mais dañ koy ko. dama dama géré ko mu gaaw. ibbi leen arrêté s'il vous plaît. waaw damay xool ndax li ngeen def normal. arrêté waaw arrêté leen ngeen génn loolu. ba ma sol man damay xool ndax ndax normal la bala ma ànd paa bi génn. non bala maa nag paa bi génn damay génn xool ba xam normal na balaa paa bi di génn su normal ma door a àndal paa bi génn. mais démb da nga ne ma woon sol woo tey nga ñëwaat. non dama def lu simple léegi dama bëgg a xool ba mu normal après ma ànd ak paa bi génn. ci kanam. Ah, ah, ah non lu yem rek yéen toog leen ngeen xaar rek dama bëgg a xool rek ndax li ngeen def normal la comme ça paa bi dooraa mën a génn. di xool ndax normal la. non ah. non dama bëgg a xool ndax normal la su ma paree ma ñëw solo. waaw génnoon loolu. dox leen dox leen dox leen waay. voilà ki mooy nee la kii ah très a mën noonu coow li ci buntu teen ma faali ma laa ma tax bi balaa dégg fukki bala ñaar kàkk laaw la cat. laaw la cat. yow nii rek ngay mel borom xolu jamaa bi bëgg ñëpp fonk ñëpp bëgg sa borom kër respecté ko borom yaay ju baax ja sa yaay na xarwa fi bàyyi waaye bàyyi laaw la ca tabarkal la waaw randu sin waaye Pam Mbay Ndaat randu sin li ngay wax neex naa dégg randu sin waaw

kon yaa yaa ngi ci li Serigne Touba di wax bernde ak xasaayit ci bésam bi màggal. dëgg la waaw bernde rek bernde ak xasaayit ak déggal doomu aadama yi ñu loolu moo ñu tax a jóg. góos góos góos may leen journaliste rek ñu mën a jël wax def leen góos il faut s'organiser ah. avancé leen avancé leen gramme ndox ndànk bi mais xool affaire bi léegi nag avancé ndànk pas par pas rek ndànk rek. Ali Ousmane jaay ci monsieur Modou Moustapha. s'il vous plaît. ci màggal ak a ko ñor. dëgg neexul. ak borom këram toppatoo borom këram ba di mbokkam. ñu def lu baax ko koy aja Koungheul Fall koy def lu baax laaw la déedéet mbax déedéet rek ko ko mën ni ko ko ñor waaw waaw dëgg la dee Pam Mbaye aja Koungheul Fall jigéen bu baax ji bëgg alaaji ak théâtre mbay ko mbàkke moom sëriñ Saliou Mbàkke ajaratu ngay fàllu lu nit gën a ko bay fàllu law la tek ko bay day do mu ngi lay doom waaw ngi ko ngi ko la la ñaanal sa yaay ñaanal la coow li ci buntu kan bi gaay ñu ko sa man lépp yaa def do ko la tek fal ko na ga sa na fal kenn ko jeex ma ne lii dafa ko fi mën bari wu dina dina nga gore nga jël ko nga gore dina ajaratu ngay fàll yaa man sa nit paquet raisin ngeen di. paquet raisin la daa day sax da ngay ñëw rek wékk lekk. moytu leen moytu leen si kii moytu leen moytu leen. yaa man sa nit nii la dressé. yow Sénégalais yee la nam. du Serigne Touba bee ko ñor. du Serigne Touba bi lay waajal. présenté ko nit ñi pour ñu kontaan baale ma nag baat dafa dee parce que dama sonn waa dama sonn baat dafa dee boo toogee lu neex da ngay sol rafet lu set lu xeeñ lu neex pour présenté ko nit ñi man dama génn rek pour visiter parce que man balaa sëñ bee génn dama war a visiter xool ndax def nañ ba mu baax ma door a ànd ak sëñ bi génn nag ñu présenté nit ñi affaire bi ñu xéwlu. donc ñu xaar deuxième attaque. xaar leen. alors bu may leen nag bu may alors d' abord. sa impression bu njëkk lan la si sa première magal. waaw bu métti la si man dafa si man du ma si bëgg a wax sax. parce que su sama xol day tooy. mu mel ni ren ku nekk xamoon na seen diggante ma si bëgg a wax billaay su sama xol day tooy. mu mel ni ren da nga cee yokk ñeex. gis nañ maanaam euh, déclaration nga xam ne nii def nga ko ren par rapport ak ren. waaw chaque année dañuy innover chaque année dañu mën a yokk dañ koy yokk ndax ñun màggalu sëñ Bamba gi daf ñoo jaral ñun ay murid lañu luñ am ci lañ koy def waaw loolu. kutu en or yi ak yi créé waat na rumeur ci réseau yi. loolu amul benn problème lépp rek màggal gee ñu ko jaral ñun sëñ Bamba daf ñoo jaral luñ am ci màggalu sëñ Bamba gi lañ koy def man barki démb laa jógee ci dëj du woon sax may tëgg programme mais sëñ Bamba gi lu mu gañ la parce que daa bari doole parce que ren ren ren ma màggal gi sax leen parce que ren damay def lu yem rek ndax dëj bi ma jógee est programme pour demaat defaat lu mel nii comme ni koy defee à chaque année loolu ñu ngi xool rek ñu ngi xool. d'accord merci. yàmbal sa nit yàmbal bi ci jot ñi ne parce que yeneen tamit fàtte woo démb yow boo wootee Sénégal wuyu si la jigéen ñi yàgg nga leen jàppale de social femme de développement lu ne femme kenn du ko jeex maam wallaay mosul ñëw Mauritanie mosul ñëw Sénégal loolu rëy na ci mais sa déguisement après ñun dañuy changé ñu naa la sa bopp dégg pour ñu photo yaa ngi gore nga telu ko gore laay seeni faar yëg yëg koy fay saa jooba ngi nii moom la ñu xaar bu ñu bisee bu ñëwul kenn du bisee yéen si jàmm lépp dama doon visité ndax baax na. waaw ñoom ñoom benn nga ne benn jàllo gi ne ñoom di ya di ya. waaw naka ngeen def. benn jàllo ji rëy. oh benn jàllo. kontaan naa la sama ay kontaan naa Aliou Fada sax mais sax na kontaan naa. ah.